ngay dégg wolof naan xaritoo ba xaritoo jeex xaritoo say jëf moo ci gën ndax soo deewee sa benn mboq du ànd ak yow sa xarit du ànd ak yow sa doom du ànd ak yow say jëf ñoo la fay fekk ñoom ngay jiital te su ñëpp demee ñoom moom nga fay desal waaw mm-hmm. ma li wolof wax dëgg la dëgg la moom dégg naa tamit ñu naan liggéeyu ndey marchandise la ci doom su doom calculer perte jàppal ko liggéey mm-hmm. loolu dëgg la kon nangu nga yooyu yëpp mm-hmm. waaw léegi lu tax nga bëgg maa sacrifier yow lu tax nga bëgg maa lamb lu tax yaay nga bëgg ma jàpp sama avenir hypothèque ko ndax xaalis pourtant xaalis du richesse xam nga richesse nga dox ci mbedd avec la tête haute doo gis nit ba jàdd doo gis nit ba nëbbatu ko su xew amee nga mësooru sa mësooru 5 mètres toog ci digg xew ba ku wax nga jàkkaarloog moom tontu ko soo tëddee nelaw soo nelawee ba say nelaw xóot nga nga doo def ay cauchemar da ngay gént gént yu neex parce que sa xel dafa dal yow soo tëddee sa xel dina dal. li lu dala di sama xel waaw ah, may nelaw ba yàndu doo rus. mi lu mën a def bay rus ah ni dama laa patal dama laa làggal ah. fan yii li ma nekkee nii amoo ci benn sentiment de regret benn sentiment de. lii est-ce que maa ko def wala defuma ko dof gi ma nekke man mii dinaa la dof loo yow war ngaa xool li ngay waxale kon bëggoo avoué man ak yow ñooy wax de yaay waaw sa nawle laa am na yoo xam ne waroo sax nangu man sa doom ma jàkkaarloo yow di la ko wax naan la yaay bett nga ma man ngay yóbbu ci sëriñ li ma tay la ndax lan ñetti dërëm ñaat dërëm yaa yaa mag loolu billaay wallaay yaa mag xaalisu masaar bii yow war naa laa gën a lu dul xaalis war naa laa gën a lu dul alal man mën naa am nit ku baax ku ne ko loola jàppee nit ku baax ku yor xaalis <laughs> waaye ñi fi gën ñi fi gën ñi ngi ci dëkk bi diiñ lool sincère lool ku ñu ànd ak ànd ak yow ci sincérité soo ñàkkee ñu ànd ak yow ci dignité te soo wanee ginnaaw duñ la yàq kookoy nit ku baax yow yéene woo ma jëkkër jooj ak ci li metti li ma jóge lépp yaay ma sëñ nekk xale bu ndaw tenj sama jëkkër dee bàyyi ma doom loo war a def xaar ma jël sama doom ji uuf ko ndax ci mettit la jóge ci naqar la jóge xaar ma jël sama doom ji nag jéem koo ñaan góor gu waax ku ko mën a yor ndax xaar yor xaalis du mën a yor jigéen yor jigéen ci responsabilité la bokk xam say devoir say àq ci sa jabar du yor xaalis ci xam yàlla ci gëm yàlla ci diina la bokk man loolu nga ma waroon ñaanal man loolu laa soxla ci góor soxla ma góor gu yor nga di ma liggéey ba ngay yëngal soo mi maa ngi lay gis maa la bàyyi ci biir rek naan ko yàlla su la sàngee mbalaanu sutura yaay loo tëradi tëradi say tànk du feeñ loolu la ma yàlla defal man sant naa ko nag bu baax sant la nag ndax xam naa ne bañoo ma dangaa yaakaar ni lii moo gën ci man mais lii gënu ci man man Massa dama ko seexlu question dama ko bañ dama ko seexlu su ma ko xoolee duma gis lu dul buu te lépp lu may fàttali bu yaay bugguma ko man instant yi sama xel nekku ci sëy lan lay daw bay daanu am naa la yow sama téere nga man duma dem ci benn sëriñ di ñaandu yaay yow yaay yaa ngi fi su ma naree faqasalu damay jafandu ci yow ndax dama laa am lan lay daw bay daanu ba ma waree sëy danga maa may ma dem sëyi kon lan mooy problème bi yaayu masaar yow gënu la ba ngay liggéey doom pour di ko indi mu may takk ba ngay liggéey wóor na ma ne ndeyu masaar mu ngay tëdd nelaw yaa ma gënal ku dul yaayu masaar yaa ma gënal ku dul masaar kon lu tax joxoo ma loolu delloo ma sama cër rus naa de yaakaaroon naa ne dëgg la dangaa bari cëfër cëfër lu ne mun nga koo wax mais dem ba di ma liggéey xam nga lu ci liggéey xam nga tey gii su fekkee kon loolu daf maa dal dëgg-dëgg ma dem ba ci biir ma sànni ma bëggatuma la xam nga li ma war a teg may xëy ci suba di wër góor di toroxal sama bopp di humilier sama bopp ñu may ñàkk kersa sa doom hmm? baal naa la nag ndax doo sama noonu yow sama yaay nga loo def dagan na baal naa la dégg may jàppal ne dara dalu ma li ma doon def fan yii yëpp maa ko tey dama doon xool yow fekkee xam nga ne carrément li nga li ma nekk nii yaa ko def lan mooy sa réaction loolu laa doon xool yow fan yi kontaan nga ci man fan yi gàcce mi ngi lay bëgg rey fu ma dem nga jëli ma fu ma dem nga ne ma fàtki ne awal nii ndax xam nga ne li ma nekk du dëgg du yoon hmm? kon li nga def nii am nga ko fenn waaye jéggal naa la yaay sama yaay loo def daggan na man ñaanal ma rek yaay dee ma ñaanal loolu laa soxla soxlu ma leneen bugguma leneen dee ma ñaanal sàmb loo am loo loo amul rek man xanaa tey jii maa ko liggéeyul mais yow lépp loo soxla rek te yàlla may ma karaw gu ñuul yaay mën naa koo liggéey ñoo jox la ko te mu lew jaral nga ma ko gisuma papa gisuma bàjjan gisuma tànta ba muy metti kenn fekku la ci man yow dong kese képp dong kon yaay yaa xaalis masaar bi yaa yow mën nga koo am yaay Massa liggéeyul bàyyi la lu jeeg togg njël xëy nga fajal nduggi ko yàllaa ñëwagul lu dëgg baal nga lundi bëggoon rek nga ci situation yi nga nekkoon danga dugg ci néegu sëy ba tey amoo ci bànneex ma doon profité rek waaye du dara Ah. bët du yenu waaye xam na lu bopp attan benn bi ci topp mooy dafa am loo xam ne dama ko mënatu mënatuma ko te jamono ji waxtaan nañu man ak yow waxuma sax dama teggi tànk ma ma xaw ma xaw a wàññi tuuti euh, mais bii nag dama jël ay décision décision yi ma jël amul tànk ginnaaw tànk kanam la am yow sax bàyyi nga lu ma yor su ma ko amee dama la ko war a defar mais nag nit day am fu mu toll loo gis ci àdduna day am rupture jamono ji samay ni ma doon dundee wala samay mbir dafa xaw a wàññeeku maanaam doole jama amoon at yàlla li ma doon dénk ci wërsëg mhm. lu ci bëri demeetul noonu gëj nga maa gis sax ma dem xew rarement lay génn gis na sama oto bi boobu ba léegi gëj naa gëj naa tàkk ndax problème essence xam nga bu ma demee nag ba ñàkk yooyu kon per samay mbir am na yu ci ne kon nag segam nag li ma mënul mënatuma ko euh, foog ñu waxtaan kër gi neewoon naa la naa la bàyyi ngay fayal léegi nag man fii ak deux mois naa la ko fayal mois nag bu fekkee li ngeen fay li ngay fay gi doo ko attan pour ma bàyyi ko sa loxo doo ko àttan nga wut foo xam ne dina yemamaay ci yow di nga ko mën a fay loolu nag moo tax ma man woon naa ñëw ma wax ci ak yow te décision la boo xam ne jël naa ko ba pare parce que mu mënatuma la ma mënoon loolu daal moo taxoon nag man ni naa la waxtaan ci ak yow waaw. Matar seetlu naa ne daal chaque deux jour nga ñëw ni ma man li ma yéene woon li ma engagé li ma doon def. Euh, il faut nga xam dara xam nga da ne biiyoon li nga jël tànk kanam la am tànk ginnaaw am ma lay xamal ni ma ne bi yoon sama jom ak yàlla lay deme ñaata at gisoo ma danga maa fekk may dund yor ay soxna comme ni nga ko waxee boo ma defee danga koo war a def waaye boo ko deful ma def ak yàlla sonatiñ sa nopp yi waxati nañ la nga ñëw naan ma li ma jël décision bopp bu yenoo na lu bopp di yenu fii xam nga lu ma la bëgg a yëgal man man damaa des yàlla amaa yow ay deux mois nga wax du ma ko fi xaar man du ma ko fi xaar dinaa xool nu may def sama njaboot na ma defoon avant nga may gis naan mënuma ko ba pare jël ay engagement di may ay pour takk jabar ni mënoo père Euh, gis nga boobu ba léegi yaa ngi naan dañoo sol sama nopp man kenn mënu maa sol sama nopp mais góor gi yow xamoo am ñàkk yow am xamoo mais lan moo tax yow am xam yow xamoo mais sa doom am na ay difficulté yu mu toll ñëw naa wax ak yow mënatuma ko mais góor gi yow yow la man mu mbir mi dafa gàtt. man metti lu ma dara ci yow lu ma dara ci yow waaye ki ne daal mun nga ko takk defal lu ne foofa. le père ay waxu kiné sax man yooyu taxumaa jóg parce que kiné moom sama digganteeg moom loolu moom am na léegi solution man loolu lu may lu may jël nii teg ko na loolu moom du mag deux minutes ci man mm. loolu nekkatuma ci dimension boobu dimension bi ma ne daal mm. ñëw naa en tant doom wax la ko mm. léegi nag euh, na nga seet noonu noonu def li may seet wax maa la ko waaw <laughs> jeex na yow amoo tànk ginnaaw ma dinaa des ak yàlla des ak sama jom voilà laa doon set raxas tab bi de laa doon bëgg a def. Euh, ma batale ko. waa kañ dem toog fee. lu xew ba jàmm. yow loo tayalee nii. <laughs> aw de laa doon wax. yónni naa sama cousin bi. waaw nee dina dina dem di ko jëlee li ma ko kër mère Ndeye Gueye. léegi nag xadi baaba damaa bëggoon aw bu ñëwee nga waxtaanal ma ak moom yeddal ma ko. ndax lii ñu ma jiiñ nii mu tax mu daw yow xam nga ne man duma ci dara comme nag jiiñ nañ ma ko te man mënuma ci dara te aw ma preuve te moom metti na ko man waxtaan naa moom téléphone li may wax ak moom mais yow bu ñëwee taaj ko nga def ko ni sa doom ngeen waxtaan aw sa doom la dégg nga. incha allah man loolu laa bëggoon. gis nga doom boo ci amee danga ci was àq. dëgg la. te aw mi mhm. mais dund ci kër gi metti na chaque jour sa yaay moo def lii mhm. moo def lee te yow bu yàggul dara amoon ngeen fi problème dem ngeen fi marché nga ànd ak Ndeye Ndiaye mu dugal la ci guuta ñu ne yaa sàcc nga ñëwati ci kër gi ñu jëndati la sàcc neexul ci xol te gis nga doom dafa foor man asumaa ngi ci kër gi yàlla def na ne aw ma fi doom ma boole li ma neex ak li ma naqari téye awa kon awa wastu ci àq taf ci sa bopp taf ko ci sa bopp ba bu ëllëgee kenn du la wekk man lii rek laa lay ñaan ndax doom tamit nawle la Habiba yow su ma su ma déggee sa yow dafa mel ne yow sa ñàkk doom dalaa naqar Habiba hmm. yow loolu moo tax fan yëpp nga nga nga triste nii sa hmm. xol bi jeex ak déglu ma rek maa ngi yaay wax maa yow yàgg nañ Habiba doom yàllaa koy maye benn sëy yàlla waxul ne ci rek daf cee def contrat doom wala boo sëy fal foos danga cee war a am doom suñu borom lu mu namul ci sëy du am gis nga bu la yàlla wërsëgalee doom ala kuli balaa ngaa gis leneen da gis doom kon nag jël lépp nga wékk ko ci loxo yàlla amoo doom waaye awo maa ko jur yow mel na ne yaa ko jur ah man awa dama la koo jagleel bien vrai que maa ngi yow dañuy xuloo ko histoire ak xeex si bi guddi gu jot waaye doom yi war ñu cee bokk man nag awa maa la ko jagleel lépp lu ma la mësoon a tooñ nag wala ma di la ko def maa ngi jéggalu neexul nag xëy na li jotoon a am sama diggante yow waaye naa jéem a fàtte yow it nga jéem a jéllale du noonu awa sa doom amul àq sax na awa ba ngay ngay dem di ko di ko di ko uh, matu maa la yóbbu awa maa ko njëkk a uuf awa sama doom la mi ngi noonu sama yaram moo neexul daal fan yii rek franchement sa kanam feeñ na ci nag. <laughs> mais eh, jàmm rek yaram benn nga <laughs> wuy ma maa ngi tëdd tuuti ci biir parce que damay miir kee di raxas ne dimbale ma xool ma ko dama kaa fay ci mbedd mi laa ko romb. yow xadi baaba nag loolu war na la. doomu penn bala. waaw bàyyi ma ma dem raxasal la dama laa àggaleel sa taal bi su meeku ji ñëw àggaleel la. waaw léegi dama dama dama dama tëdd dama tëdd si yow sa gàttaay xool ko ci gàtt saf. <laughs> ñàkk doom ah, dërëm mi maa ko wóor te damaa bëgg nga seede li muy wax dërëm xamal na yow léegi ci biir kër gi nga bokk ci biir famille bi nga bokk dootoo fi kan comportement bi ba war a am ci biir kër gi boobu mu war a am ci biir kër gi parce que soo xëyee fi ngay nekk fi ngay nekk fi ngay defee lépp ba ngoon ngay ñibbi ñu rafetlu ko loolu ñun waa kër gi waaye dafa am benn comportement boo xam ne bii dama bëgg mu changer si yow ba coogul xaalis lii ci biir kër gi ñu la ci tudd yow man di rafetlu ma leer na ma ne bàccet ñu rafetlu jigéen ñii seen coow li ci biir kër gi dërëm dama bëgg nga teg ko nele bu ci dugg bu ci wax parce que man nag li ma gis man gëm naa ne ñii seen seen fi ñu jëm fi ñu jëm de ci liggéeyante lañ jëm si seen biir ñoom ma leer na ma man dërëm xoolal ci man ma changé naa complètement li ko ko waxoon dañ naan caam c'est pas vrai du dëgg kii du caam kii beneen caam lañu gis léegi baa jën ci yow laa jot baa jën waxtaan naa ak binom ni nga mel ci biir kër gi ma neexuma sama sœur nga dama la koy wax c'est entre nous ñun ñett rek ñoo fi toog bi doon waxtaan naa moom ba damaa bëgg nga dellu sa sëy bële. incha allah la kër gi de déedéet bu ko xalaatee noonu de damaa bëgg kër gi nga dellu sa biir sëy bee di sëy soo soxlaa nga ñëw ci biir kër gi fii sa kër la ah, à bon entendeur nag sali. non salee ko Thiam Babel woy amagul daanu euh, Thiam man bëgguma mel ni yow muy benn ñaareel ba mooy boo amee say conseil téye ko parce que fii ci kër gi koo fi conseil mun na laa conseil ci biir kër gi fii kon nag ku nettee say conseil xadi baaba nag mi ngeen mi ngeen ma tiim naan ma def laa gis ci lii dalaa dégg ci laa ah lépp ay sos la waaw moo ko wax moo ko wax parce que li mu wax du dëgg man bu ma ko defoon ne maa ko def ku ma fi mënal dara. fu def naan maa def. waaw man bu man bu ma defee ne maa def de. man waaw da ngay déglu ma maa tey. Ah, man bu ma fii lu ma def dama naan maa ko def. kon caam boo amee say conseil teel man soxlawu ma ko je ne te conseil <laughs> jéeg wax jéeg ci man dafa bari dafa bari bàyyi leen ma man nooyi lan yow da ngaa mën a conseillé kenn barki démb fii laa jënd sama mburok ton bu neex raax ca mayonnaise toqal ca këccëg ne la teel ma ma dugg euh, tuur ndox ma génn ngeen ko dellu dóor waaye yow yaa yow maanu yow li nga def loolu loolu loolu sàcc la parce que da ngaa lekk alalu jàmm da lekk luñ la mayul ah, kon yow tii jeune valeur yow bu nuy wax sàcc yow yaay sàcc bi yow yaay sàcc bu làqatuwul yow la lekk alalu jàmbur te làqtuwoo ci dara. noppi waaye bu ma merde. tout ça merde yow tamit da ngay noppi. waaye yow ma da ngay bàyyi nit ñi wax lu bari. waaye ma ah ma wax tuuti yéen wax lu bari. waaye yaa yaa may nit ñi seen jàmbur sa morom mooy xas du sa morom mooy xas te man bu ma fi toog à part si jours di nga di ko xas. Eh? lu leer laa ko sinon dama lay sifaay yow laay wax <laughs> man sama sëy bi ngay wax man génn kër gi rek laa bëgg toogaay bi may toog ci biir kër gi man neexuma su ma soñee damay dem toog sama biir kër gi di togg di yàq di fóot di paase di def comme ni jéegi di def taal cuuraay def lépp yàggatu binoom moom ci kattanu yàlla ak baaxam li nga waxtaan ak moom dinaa ci gën a renforcer gën a ko waxtaan ak moom pour mu yóbbu ma dem sëy la fi fi xat ah man de man de ba ma ba ma toogee ba léegi bougé ma di nga bougé nag ba ma toogee ba léegi bougé wu ma gàllaaju kër gi man a de gàllaaju kër gi kër gii seen gàllaaj man na de da ngeen maa xeeb ko fi gane defoo ko fi ba ñuy tabax kër gi xamoon nuñ ko tabaxee ba ñuy defar kër gi xamoon nuñ ko defaree yow fii lu bon lu fii nar a ñëw man lay fekk ci bunt bi maa koy baare ba dugg yaay première ko bon ki hmm. ndax yaa fi dugg ci biir kër gi sàcc boo ma waxatee sàcc ma tay ko ci sa waxaat ma sàcc maa ne la sàcc yéen sàcc gi day bëgg a bëri ah, ah loola seen bi bàjjen way bàjjen wax ji def naa feral ku lay dërëm nga baal maa peut na ma comporté woon démb moo la xaw a jaar mais la ma wax laay waxaat kër gi ci biir kër gi nga bokk changer sa comportement foofu laay wax. loolu la ñu war a wax rek. te na. fi may démarrer nag mooy sant sama doom jama ñàkk bu ndax xam naa ne neexul remplacer lu ne yenu na ko màtt nañ ko gëj nañ ko lépp mu muñ yenu lépp te neewul un te loolu mi ngi soo leer lii may wax nag damaa ñor Masaar dafa toog fii ne ma bàyyi ma ne ah mu ne ma man li ma mënoon mënatuma ko yenu naa leen dund bi fay location ndox courant yëpp waaye xam naa ni mënatuma ko léegi li may bëgg daal joxel naa leen fayal naa leen deux mois ngeen ne fi bu deux mois yi jeexee nag nga xool foo jëm ak say jabar ndax man mënatuma ko euh, ma ne ko dégg naa la waaye dama bëgg nga xam ni ñaata at gisoo ma may dund nga fekk ma ay soxna ma des ak yàlla dolli ci nag ni ma décision bi ma jël amul tànk ginnaaw tànk kanam la am man ko rawatina ak man yow amoo tànk ginnaaw tànk kanam nga am man décision bi dinaa des ak yàlla man it am tànk kanam léegi nag ma bëgg données yi xam ngeen ne day changé man du ma fi xaar deux mois yooyu mu joxe du ma ko xaar dinaa ko lijjanti ñu génn avant deux mois yooyu mu ñu jox beneen mooy problème mu kër gi il est temps que nag. ñu sot sotoo ko man ba ma ko xam ngeen ni man dépense bu ma ko mënee yenn saa yi dama naan dareet sax rey sama xar indi bu ma ko yoree kenn du ma xaar leen na xam nga waaye nag comme changé na il faut que ñu sotoo kër gi ma bëgg képp ko aaye léegi yow yaay gérer sa dépense lu jëm ci location man dinaa ko fay ndox dinaa ko fay courant dinaa ko fay foofa laa yem ñu sotoo kër gi ndax man fu ma ne nag fa ngeen di ne ah ba ba ngeen may ba ba ba ngeen may ba wan ma ginnaaw waaye man fu ma ne bëgg naa faa nekk ak yéen même bu dee pantere loolu daal laa bëggoon ñu waxtaan ci xalaat ko waaw. ci wax ji. Hmm. mooy nga yor sa ñeenti jekk nga xam ne daanaka ñun ñetti ñu defuñu dara xëy na bu yëngu day am sax xarit baaba mee fi yëngu nga bëgg leen nee leen dee leen débrouiller dépense hmm. xanaa loolu de mooy dem leen ngeen jaayi seen bopp ndax dëkk bi loolu la war a bàyyi jigéen kenn du ko yor di ko débrouiller loolu yow xam nga ne man sësuma ci kenn kama fi yoroon muy buudi sama poos anam dem na léegi xanaa loolu boo ñu ko def mooy dem daal def lu neexul yàlla man de loolu wax dëgg ba xam naa ni mënuma ko ndax bu ma doon sama yàlla jël na ko yow bu fekkee léegi danga ñoo yoroon te mënatu yor nga yeewu ñu moo gën a simple nga ñu débrouiller ay dépense man de loolu de dama koo waxul man <laughs> man kay ba ba li ma bëgg a xam nga ni Massa dafa ne la moom yoratu. loolu la wax. moom loolu la wax. Ah, moom loolu la ma wax man ko ma des ak yàlla. waaw moom après lu ñu lijjanti la moom. Eh, daal wax waaw. man de. ku hmm? dara dégg naa li ngeen wax sax waaye man lii lii ngeen wax nii su ma ko mënee daal dinaa ko def. ndax man fi mu toll nii wéru ma te suba damaa bëgg a dem jëli sama analyse loolu doomu la. Ah, loolu amul problème yow bis bu ñu tollee ba ay ñëw ba loolu dinañ xool nu ñu gérer situation bi. kooku ah, amul problème moom koy tëbal rek ginnaaw wératul moom. ñëwagul lu ñëwagul mënut a yor nañ xaar ba mu léegi man li may sànni bariwut. Mm. ndax danga ne sën. xadi euh, baaba doo nga fii liggéey du xadi baaba doo ngay liggéey man maa ngi liggéey yaakaar sama liggéey bi li may def du liggéey waaw man jaay mi may jaay liggéey la te maa ngi ciy sant yàlla di ci am sama bénéfice di am lu ma ci suturloo sant yàlla li mu wax nag buñ ko mënee rek def ko buñ ko mën ku mënu nga ne mënuma carrément mais bul bul jël bul jël engagement wu ñëpp mënuñu du dëgg. kii de ok ah, xanaa yor làmmiñam bëgg a tontu toujours xam ngeen ko bëgg a wax ay gi dama bëgg nga suñu jógee fi maag yow mm. danañ gisee danañ waxtaan loolu leneen la bul dugg sax ci yow ci compétition bu loolu rek laa lay ñaan amul benn problème voilà waaw. libéré xadi ba ma comme que wéru day gas sa néeg. day mm-hmm. gas sa néeg. waaw waaw. ngay jël sa analyse. waaw isaan ko tàng feebar na. non mooy yow bul tiit. Ah, ay analyse ngay xool feebar ba loolu amul benn ah. problème. Ah. feebar mën na lu la nag. léegi daal ngeen góorgóorlu xamee ko noonu. Massar moom mi kër ah xaw ma de ba mu waxee man laa dem de xam nga moom du toog. waaye as bu fi masaa nekkee loo mën ci li déet moom eh li ma le bu ko kenn ñaan dara nañu dañu doon def te gisuñu ko. Mhm. Ah, bu ko dem di ko ñaan dara naan ko sa papa lii ñaan law ma la. voilà xam rek ndax jege na kër wax kii ñaan loo ma mu naan paa bee yónni ci ma dégg kenn voilà jeex na d'accord. waaw na lis des yàlla na ci yàlla was barke waaw amul benn problème moom daal nañ ko gérer jàppalante rek yàlla waaw d'accord bul bokk sax ci compétition moom dénk yow nañu waxtaan Mm-hmm. man daal dafa am koo xam ne dama doon lamisoo ak moom. lamisoo mooy lan. Euh, maanaam li olof naan doxaan. Ah, ah. waaw daa am benn ndaw soo xam ne daal mm-hmm. euh, euh, daa toj sama bopp bi. Mm-hmm. waaw moom nag suñu lamisoo gi neexoon na lool. ba romb ko. waaye daal jamono jii ñu koy waxee. daa mel ni dañoo dëddale ma moom. Mm. waaw maanaam bu ma awee nii mu aw na le. waaw looloo waral nag man naa ñëw ci yow doon sàkku ci yow ba xam amul loo xam ne daal mhm. lu mel ni wàllu kànnaar wala loo xam ne dina ko dëj daal <laughs> détourné bopp bi ba ba dellusiwaat ba lu ma ko wax mu def mhm. waaw looloo waral daal man daal naa fi ñëw wax si la mhm, loolu daal moo doon soxla yi baax na nga maanaam euh, kànnaar nga def ko loo xam ne loo ko def ko waaw ko mu def ko dëj ko maanaam nga def ko loo xam ne boo ko takkul kenn du ko takk waaw dégg naa ñaari wax yëpp Euh, di ngeen doon diggante ngeen dem ba mu yàgg mu mel ni seen diggante dafa naqari. waaw ah, melatu ni mu meloon. mu ngi noonu waaw loolu dëddale da koy def léeg-léeg ci diggante yi. Mhm. waaw da koy da koy def mais nag ñaare li koy gën a def mooy. Mhm. yow yaa ma yaa fi ñëwoon keroog mhm. du communicateur yëpp sax mais yow moom yow communi yow moom xam naa da ngaa noppiwul moo tax. xëy na danga ngaa nekk ak moom siiwal ko mu siiw jigéen beneen góor gis ndaw si bëgg ko wala jigéen gis la yow bëgg la yàq seen diggante loolu rek la te doo ko yëg te doo ko xam parce que ay xaritam mën nañ ko jàppee xarit sax la mën na jàpp ne bo ñii ay xaritam lañ wala yow nga jàpp ne ñii say xarit lañ fekk ñooñu iñaanee nañ la li nga am yow buñ koy yàq doo ko fekkee te lu ñu leen jox ngeen jëfandikoo it da ngeen koy jëfandikoo du ngeen ci xam dara donc loolu mën na indi dëddale seen diggante mais lu mën a doon dinañ ko confirmer ci listixaar bi ñu war a def dina la wax naka la ñuy defee listixaar bi ci mujjanteel ga beneen bi mooy ngeen a dëgg ma defal la loo xam ne euh, loo ko wax daf koy def ma jaarale ko ci kànnaar am na mën nañ ko man mën naa ko mais du ma ko def musuma ko defal nit te du ma ko defal nit man mii di wax ak yow euh, mën naa ko defal sama bopp ci kilifa yi may jëflante lu mu leen wax ñu def ko mais du ma ko def xam nga lu mu ko def parce que ki nga ko def defeewul sago lépp loo ko laaj bu la ko joxee lu dagan dafay xaram beneen bi mooy yow imaginel ma jox la kànnaar yow waxuma yow de mais ma jox ko fekk jubul ay intention am baaxul ma jox ko mu tëj kànnaar bi woo ndaw si ànd ak moom euh, yàq ko fekk ndaw si nekkul jabaram bàkkaar boobu nga foog ne man dana ci mucc man sëriñ bi mu ci mucc du ma ko def te man mënuma xam say intention ci moom te it même bu fekkee am nga intention yu sérieuse ci moom say impulsion yow mën na ko contrôler moom bu fekkente ne def na loo ko wax mu def ko bu ñëwee bu la ma mënee mais musiba am te musiba bu amee man am problème man tamit sama diggante ak yàlla nga ne it naa ko dëj ba du jëkkër waaw ma dëjal la ko tey ñu dem tey ma dem ci guy jël pont def li may def tudd ndaw si daj ko ci guy gi dëj ko nga fay ma ñu wane ginnaaw man ak yow tey lañ ko def suba yàlla moom moom bakkan mu jël sa bakkan yow lor nga ndaw sa ndaw su ko koy takkati lor nga ko dee wala yow suba say intention changé nga bëgg takk keneen bàyyi fa ndaw si kan mooy takk ndaw si après kan moo fa teg ndaw si yow la wala man la dafa am liggéey yoo xam ne nit ñi dañ jàpp ne baax na mais baaxul du liggéey bu baax man du ma ko defal nit ci kaw suuf xam nga li ma la wax kànnaar bañ koy defar li taxoon mu jug mooy koo xam ne dafa amee dafa dafay gàllankoor par exemple jullit ñi ci dooleem nga bëgg mu dëñ nga liggéey ko kànnaar ko ba nga xam ne moom boo ko waxee ne bàyyi li ngay def mu bàyyi ko signal ñu lii pour ñu am suñu par exemple internat mu signé ko defal ñu lii lépp nekk ci euh, avantage yu benn jullit ñi par exemple loolu ko taxoon a jug donc daal dinaa la xoolal sa diggante ndaw si gàllankoor bi lan moo ko indi naka ngay def ba jot ko incha allah ci wàllu ñaan ñi yem foofu incha allah naa ko defal yónnee ma vocal whatsapp ci 78 soo ma fi yónnee message ne ma sëñ bi dama bëgg li si xaar sama diggante diw sangam naa la wax nan déedéet man kenn jiitu la fi man noonu lay dundee nii laa mel. njaga jiitu ma fi. wallaay nii laa mel. waaw ah, dafa am ñoo xam ne fu ñu la jiitu loo fa wuti du baax. sëñ bi ndax dañ la fay waxal loo xam ne wax joo xam ni. milliard boo ma ko fayee fa jëm ma ko fayee def loo mu lu bon du ma ko def. Ah,